déclaré positif ci yooyee ka am nañ lu toll ci juróom-ñaar fukki junneek juróom yu toftal ñaar fukk ak juróom-ñett yu wér ba tax nañu ñàkk seen bakken bi fi mbas mi duggee léegi itam lim gi toll na ci junni ak juróom-ñeenti téeméer ak ñeent doomi aadama jamono ji ñuy àddu ñu nekk ci lalu l'hôpital yi wala seen kër ci wàllu traitement bi toll na ci ñeenti junni ak juróom-ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom ba tey ñu desandi ak mbas mi euh, fii ci euh, Sénégal mu mel ni rythme bi vaccination yi di wéyee tax na nag ba fu ni euh, njiitu réew mi mer ba futu ci wàll woowee daal di nag Sénégal dootul dem jënd jëndatiwaat ay doses yu yees ci wàllu wu nu me ndax nag li ko waral lu toglu ci juróomi million ci ay doses ñoo disponible waaye nag gisuñu kenn koo xamante ne dafa war a mën a dem ngir jëli ci ci yooyee ñàkk mu mel ni taxaw seetlu wi ñu daal di koy def ci wàll wu nu mel ñu ànd ci kile di Younoussa donte sa campagne ñeel sensibilisation soxol vaccination bi bari na lool waaye nii ñàkk bi di demee ci réew mi nag yeex na lool tey jii daanaka lu ëpp benn million ak téeméeri junni rek ci ay sénégalais ñoo jot a ñàkku mu di chiffre boo xam ne sori na lool ak mbëbët kilifa yi monte de fu mu toll nii Sénégal am na lu gàtt gàtt juróomi million ci ay dose vaccin yu disponible waaye loolu taxul sénégalais yi demuñu ngir ñàkku ji ci structure de santé yi li mel waral njiitu réew mi président Macky Sall jël ab décision ferme ba ñu sukkandiku ci journal Le Quotidien président Macky Sall nee na Sénégal ju jëndaat ay dose vaccination yu bees soxal la Covid 19 lu gën a firndeel décision njiiti réew mi moo di ne daanaka lu jege quatre cent mille ci ay dose vaccin jot naa yàqu ba ñu sànni ci mbalit mi. jërëjëf Younoussa Baldé mu mel ni secrétaire général bi ëmb syndicat autonome des médecins ak pharmaciens chirurgiens dentistes bu Sénégal di SAMES daal dinaa yëkkati ay kàddu joble ko ci wàllu wi ba tax na mu ngay alerter di dànqaafu ci wàllu wu nu mel bu ñu sukkandikoo ci docteur Amadou Yeri Camara jàpp na ne naam cas grave yi bëreegul noonu waa boo moyul ni rythme bi di demee ci wàllu wàllante bi mën naa feesal yenn ci l'hôpital yi ba tax na sàkku na ci askan wi ngir vaccination bi bu ko defee euh, ñu daal di aar bu baax a baax euh, Sénégal ñu teewlu ay kàddoom ci njàppandalu Youn Sabalte gaa yi moom boo boo leen gisee gaa yi di yokk xam nga ñun dañu njort ne après dinañ am ay gaa yu ak ñàkk seen parce que même bu dee feebar bi soxraay bi du benn te yeneen yi paase bu dee dañu am ay nombre bu jëkk dayoo mën na njort ne ñi nga xam ne dinañ ci sonn ci lim boobu dina dina gën a yokk donc loolu wax dëgg yàlla dañuy daaxal yi nga xam ne gis ngeen joueurs yi nga xam ne peut-être ñoom ils étaient assez costauds jouer. Donc les jeunes aussi, c'est la même chose. Ils doivent se vacciner pour protéger, même s'ils sont assez costauds pour résister, ainsi de suite, ils n'ont pas de morbidité. Dañu war a ñàkku pour protéger personnes âgées, protéger ñoom égoïsme moom warul nekk de mise dans cette phase. mu nekkoon docteur Amadou Yéri Camara ñu daal di àddu nag ci leneen muy rek ndaje bi na moon am ci diggante taskatu xibaar yi ak collectif àndu sàmm jikko yi mujjul am nag dañoo joxe rek ba jëmmi jamono la ñu wax waaye joxuñu date ba ñu nama amal boobee événement ñoom kenn ci collectif bi nag ba ñu ko woowee téléphone la mu xamle rek moom moo de ñàkkum saal bi ñu namoon amal mbir yi foofee ca institut islamique rek ñu daal di koy puus ba jëmmi jamono ci. rek fàttali ànd sàmm jikko yi xam ngeen ne nag dafa proposé woon ab euh, projet de loi bi ñeel wàllu criminalisation euh, borom ñaari tur yi fii ci euh, Sénégal proposition boo xamante ne ne bureau bu assemblée nationale da ko neena loon ni ki juróomi fan ci weeru janvier yi ñu nekk te génn ko rejet boo xamante ne it tax na ba ñenn ci askan wi yeewoo fële ci rek commune bu ba Ndiaye lu toll ci juróom-ñett lañ ci ay village yoo xamante ne ne nekk ci département bu Tivaouane ñoom daal dina ñoo génn maire bu futu ñoom itam ci wàllu wunu mel ginnaaw gi nag euh, ñoom ñañu mere sax bokk na ci njooñu kile di maire sortant bi di alelo ñoom dañoo jàpp ne rek euh, dafa dañoo yëkkati ay kàddu jëmale ko rek euh, ci seen imam bu boobee gox ba tax na nag ñoom jàpp nañ ne kile di alelo bokk ca bureau bu assemblée nationale waroon naa moom itam neenal bañ neenal li nga xamante ne moom moo di projet de loi boobu waaye ñoom tey jii taxaw nañ nag nee parandoo maire bi di yëkkati ay kàddu yu tegginewu di ko teg ci ndodd seen ab imam ñu teewlu ci kile di mbay Mbaye kenn la ci ñoom ci njàppandalu Mbaye Taal Xuma neuf députés yi ñi nga xamante ni ñoo bañ ñu criminalisé góor jigéen fii ci Sénégal suñu meeru dëkk da cee bokk suñu imam doon def li nga xamante ni mooy xutba ajuma bii di passé neuvième bi nag dafa laal ki nga xamante ni mooy monsieur Alé suñu meeru dëkk loolu tax na ñëpp ñi nga xamante ni ñoo bokk ci moom loolu naqari leen ki nga xamante ni mooy dëkk ca Taïba mbay doon ki nga xamante ni ko ñëpp xam na ci Alé Lo taxaw wax ju bon ci suñu imam lépp loo yaakaar ni rek as gor waru koo dégg ci noppam na ko ko kon nag du ñu nangu ñoo xamante ni dara politique dong leen ñor te politique boobee du politique gu seen politique gu moo leen ñor ñu taxaw jël suñu imam lépp lu bon ñu di ko ko traité ñu àddu nag euh, ci leneen daal di soxol rek campagne bi ñeel wàllub yëkkati ay fonds maanaam euh, fexe ba dajale ay koppar euh, ngir daal di koy rek jëmale ci wàllub juróom-ñetti nappkat yi nga xamante ne ñu ngi bawoo ca Joal daal di réeroon benn weer gi nii ñu leen di seet ba tey jii kenn gisu leen fële ca Ilinking nekk ca Ziguinchor seen ay wayjur nag ñoom ñoo daal di initier lu nu mel ndax dañoo jàpp ne rek ñi leen di autorité yi ba tey jii ñuy àddu seen réaction dafa yéex lool. ba tax na ñoom a ah, taxaw nañu temp ngir dem defal seen bopp ay recherche ngir mën a gis ah, seen doom yooyu nga xamante ne boobu ba tey ñu ko leen di wër ñu dem foofee ci Mbour ànd fak sunu ndaw luñ fa toogal di Aline Batara Sonko. ñoom nag ñoo ngi toll ci juróomi ñetti nappkat yi nga xamante ne Joal lañ jógee demoon sa Casamance campagne depuis boobu ba léegi seen ay mbokk amuñu benn nouvelle ci ñoom fii ci Joal fi nga xamante ne fa lañ cosaanoo seen ay mbokk ci jaaxle bu rëy lañ nekk. tey nag dañu am jàqare amit naqar. bu mag a mag. ñoom sax d'ailleurs lancé nañ ak cotisation bi nga xamante ne lu waaye am indi ngir ñu dem seeti leen. waaw dañu def collecte fonds képp koo xamante ni sa famille bi nga bokk wala pêcheur nga kenn ku si nekk ñu ngi collecté di ñaan ndimbal. fii ne nii nag ñu ñaan ndimbal amul xaaj amul seen képp koo xamante ne yàlla mënul doon na la. nga dimbali ñu si. ñoom nag jamono ji mer ba futt lañ def ci gouvernement bu Sénégal ndax ñoo ñoo jàpp ni autorités yi dañ leen seetaan. ñuy métti taxawaayu état ci mbir mi. parce que interpellé nañ marine nationale. woo nañ directeur des pêches képp koo xamante ni kilifa nga rek te bokk ci napp gi rek. ñun interpellé nañ la si cas bi. ba tey ñoom xaddiw ñu benn yoon ndax ñoo ngi sàkku ci gouvernement bu Sénégal na jéem a xool naka la leen di jàppale ci seen ay mbokk yi nga xamante ne 30 jours ngi nii kenn amul benn xibaar jëm ci ñoom. ñu daal di àddu nag ci wàllu politique xam ngeen ni campagne bi door na bu yàgg ñu ngi ca xaajal li nga xamante ne moom moo jëm euh, ci euh, campagne bi dugg rek ci local yi ñu dëgmal maanaam rek euh, ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier gi di dimanche gi ñu dëgmal mu mel ni nag yenn ci candidat yi nag dañoo wane seen ab télé seen ab jëmale ko rek ci wàllu seen i ay domaine de compétence ci collectivité locale yi loolee tax na sax tey ji ñu daal di def ab taxaw seetlu ci juróom-ñeenti ponk yoo xamante ne ne ay domaine de compétence la yu ñu jagleel ñi nga xamante ne ñoom ñoo di maire boo jëmalee ko rek ci wàllub décentralisation yu collectivité territoriales yi ñu àndi ceek Léopold Tamba élection locale yi ci mim réew daa mel ni lu jiwu ay candidat yi yootu mairie bi daanaka ay kaddu yu waroo wala sax yu sofaanu ak acte trois de la décentralisation ñooy jib ci ay caravane ak i meeting nga day ay borom xam-xam ci mbir gu ni mel jéemu ñoo gindi askan wi ci yile kàddu yu amul bopp ak génn ndax ñenn ci politiciens yi ñoo ngee diggee naan bu ñu faloo duñu tab daañu tabax l'hôpital niveau deux ak trois yile kàddu ay naxee mbaay kese la ndax acte trois de décentralisation da koo dàq nguur gi moo am ngile sañ-sañ ci aw doxalin gu ni mel day wone nii am na ñii nga xam ne ni ñoo ngi sàkku mairie yi te seenu xam-xam ci acte trois de la décentralisation des naa lëndëm ci seeni yuur ana luy tax ngay sampeef ndënd ngir jiite mairie yi te sa alluwa matut ndax ak ak trois de la décentralisation dafa am ay soppeeku yu xóot ba tax naa waaye politique yi ak foo mën a nekk day laaj sa liggéey nga soobu ci nga fexe ba nga am si aw gisin goo xam ne ne gu leer a leer jërëjëf euh, Léopold Tamba ñu daal di desandi ba tey ci wàllu wu ni mel waaye nag bi yoon wax rek ci candidat yi ak nañu taamu lilee di communication visuelle bi maanaam ay affiche la ñu taamu ñu ci ëpp waaye nag nañu ko defee ñu bëri dañoo jàpp ne sowaas la dafa sowaas loolu ginnaaw nag ay poto buntu kër jàmbur yi fu leen neex la ñuy jël ne tey photo yi la di candidat yi mu mel ni nag ñu bëggi dañ koo ñaawlu ndax dañoo waroon jàpp ne rek dañu ko waroon réglementer ni mu gënee bu ko defee ku ci nekk dina ci gis euh, boppam te duñu lor kenn ñu ñu teewlu ci sunu reportage bi nga xamante ne Abdou Aziz Sow na ko ci. ay affiches yu ñu xotti yeneen ñu xoos fu ne lañu leen taf ci mur yi pont yi ba ci poteau électrique yi ci anam bu jaarul yoon. miiru jàmbur nit peinture ba pare nga ñëw defar nga ñëw taf ci sa doon sa kol def ci kii mais loolu yàq la. loolu baaxul tooñ la. te alors que nag vraiment autorité bi waroon na xool neneen noo xamante ni bi vraiment dina mun a permettre le gars vraiment ku ci nekk. nga am sa benn ay espace publicitaire boo xamante ni nga mën a def say affaire ku romb gis du du du polluer kenn. yenn ci affiche ñu collé leen ci kaw yeneen i affiche mu mel ni kon saboo te moo tax a jóg ñi te moo ne day kile ci panneau yi la taf bosam. normalement war na am une plainte parce que man mënu ma dem luyee sama panneau nit jóge fa lay ñëw affiché ay kii yam si sama kaw mais loolu dama koy attaqué. ñu duppee ko guerre des affiches lu ni mel itam mun na jur violence. heure boo ñëwee fekk ma tab sama photo man boo mooy boo ko dindee mun nañu xeex. ñu moytu yooyu daal fa la violence bi njëkk a jógee daal am na yoo xamante ne tamit day xaw a nduru tooñ daal. donte dañu koy faral di gis saa yu campagne électorale amee. teewul ñu bëri ñu ngi ñaawlu anam bi ñuy coller affiche jaajëf Abdoul Aziz Sow baax ñu daal di wax na ci situation bi xew fële ca réew Mali ginnaaw sanction bi CEDEAO daal di teg ci ndodd jungle bi mu mel ni démb nag askanu bi yeewoo foofee ca Mali ak jungle bi yëpp daal di nañoo génn def mobilisation bu mucc ayib ci boobee mobilisation bu ñu sukkandikoo ci spécialiste bi nga xamante ne xelam dafa màcc ci wàllu relation internationale di journaliste bi di Mamadou Thior daa wax ne rek ku ci nekk war ngaa jàngat bu baax a baax ci situation bu rawatina nag CEDEAO ci mobilisation bi nga xamante ni def nañ ko naka noonu itam jungle bi war nañoo wax transition bi kañ lañ ko war a mën a rek jeexal bu ko defee jàmm de ñooy tey it ñuy ko bu baax a baax lu nu mel mën a law ci yeneen dëkk yi nga xamante ne ñoo fare ci CEDEAO ñu teewlu ay kàddoom nit ñu takku ñi génnoon euh, ci xàllu capital ba ko ak yeneen euh, dëkku taaxi foofu ca Mali ci Mali day gën a dooleel ñi nga xam ne ñoo yore nguur gi euh, yore nu ndegandiku mooy militaires yi def coup d'état bi loolu loo xam ne faw waa CEDEAO jël ci njàngat parce que réew réew itam bu dee askan bi dañu ànd ci sa doxalin yow mënoo teg loolu fële bañ koo suuraale gis nañ ne tey CEDEAO jël na ay daan yu diis teg ko ci Mali Maliens yi génn ci ay pàcc yu bëri wane ne ànduñ ñu toog waxtaan parce waxtaan boobu ñi nga xam ne sax ñoo jiitee nguur gi foofu sa li nee na tëjuñu bunt bi maanaam pare nañ pour waxtaan euh, te itam euh, boo xoolee waa Mauritanie ak waa Algérie ñu ngi ciy dox sanku jàmm pour euh, gën a ñaax ñi nga xam ne ñoo militaire yi defoon coup d'état bi ñu wàññi diir bi nga xam ne moom la ñu wax diiru juróomi ak at yi parce que loolu itam du lu xel mant nangu ñu daal di nag ci wàllu tàggat yaram xam ngeen ne démb suñu gaynde yi dafa timbo ak ñi leen di rek waa Guinée ndam demul ndam dikkul 0-0 la mu mel ni mu ngay waaj bu baax a baax matcham bi dox ci digganteeg Malawi xam ngeen ne nag niki mardi mooy nekk ñetteelu bés bi nga xamante ne muy mujj ci seen poule bi mu mel ni seen adversaire bi ñu nam amal moom itam dafa am victoire mu nekk victoire bu rëy boo xamante ne am na ko démb ci digganteem ak Zimbabwe daal nañ leen dóor ñaari bal ci benn mu nekk. nag match boo xamante ne ne du yomb dina gën a métti ci compétition bi eh, ci sunu eh, gaynde yi nga xamante ne ñoom fu toll ni eh, faw rek ñu daal di gagné bu ñu bëggee ñoom itam daal di qualifié ci huitième de finale yi ñu dem foofee ca Cameroun fekk fa sunu envoyé spécial di Soxna Fala ñaari matchu Sénégal yëpp dafa faible benn bi kese lañu daal di dugal seen kanam ak Zimbabwe ca pelanti la prétexte yu bari nag ci mauvaise performance bile ñi ngi koy wax bokk na ci heure yi ñuy programme match yi ci bëccëg gi ci ñaari yoon yëpp waaye tam absence ñenn cadre yi dafa affaiblir groupe bi lu mu ci mënti doon daal Sénégal bokk na ci ñu ñu lim ci ñu war a gàddu Coupe d'Afrique bile maanaam ci favori yi waaye waneegul dara rek lu dal xel ñetteelu génnam nag dina am solo lool Sénégal war ci jongante ak Malawi mi nga xam ne dafa am ndamam lu kanamu Zimbabwe daal di relancer waat mu doon ndam lu nu xaarul woon waaye lu ni mel mën na doon source de motivation ci ñoom ci kanamu gaynde yoo xam ne dañu am wàññeeku ak i manquement ba pare di seet seen bopp ba tey gisaguñ ko en attendant match boobee di yegsi wàccaay gi ñu ngi koy wéyal séance entraînement tey dina am ci ngoon. soxna Fall ñu lay jaajëfal bu baax a baax yow ak équipe bi ñu toogal foofu yëpp di Sadio Abibouka ak Pape Moussa a ni ki tey jii nag ci tënk rek sunu gaynde yi ci ngoon si dinañu daal di entraîné wu bu baax a baax mu mel ni nag dugg nañ ci seen ñetteelu match bi bu nga xamante ne ne mu mel ni nag match la bu dul yomb bu ñu su sukkandikoo ci seen capitaine bi di Sadio Mané mi nga xamante ne moom mu la ñu dénk bile brassard moom nag daal dina koo xam ne démb waaye tam naqarlu eh, état bu pelouse bi waaye tam naaj bu tàng bi nga xamante ne jot nañ ko ci euh, football euh, mu mel ni euh, mardi ak jàmm la sunu gaynde yi nam laale ak Malawi lii moo fi rusandi woon mbokk safoo di seetaan la chaîne leader xibaar yi daal dina buur yeneen xibaar incha allah bu 19 45 jotee lay doon ci kàllaamay nasaraan waaye